maa ngi dolli ziar ni bu baax a baax ni am nga jàmm waaw maa ngi am jàmm ni sant yàlla wër nii kay noo gisee làmb ji fan yi waaw ji nag fan yi neex na lool waaye benn heure rek moo fa may arbitrage kase waaw man nag benn man nag benn lancé rek la benn message laay lancé benn discipline amul bu ñuy fay benn ngoon mbër 100 millions ñun pourquoi mënuñu am VAR quoi. VAR VAR. arbitre teg ay micro ñu doon professionnel. entraînement dafa métti ku si am ndam ñi joxal ko sa biir kër nga ñibbeeg moom quoi waaw. di fekk cent euh, ci ginnaaw même erreur yi mooy répété wu. day fotu nit matut boo gisee football ñu it ñu ut vaar nit moo matut arbitre non jamais de la vie écran bi nit see mën a sànni xeer ba mu toj écran bi nit see mën a sànni xeer simple li ñu xaw ma damay bëri rek boo amul la leen da ngay ñëw nga takk vidéo bi léegi ñu envoyé sa téléphone nga dem joxe vingt cinq mille ne sa compétition ngir béykat sa yaakaar te bëri door moo ko bu coono fuuf kon nañu dimbali loolu seen seen ngir yàlla ak yoon tamit te yàlla tax suñuy kilifa su suñuy bàyyi lan message am na solo mais keroog Sa Thiès Sa Thiès li mu bëre keroog xaaroon nga ko bañ a xam xaar naa ko ci moom na jàppal naa ko ndax xam naa quel défi moom maa bu fi baasi na rek rek fuut dama koy yegg foofu te du dem kon xam naa quel défi moom lan neex ci li nga xamante ne moom la Sathies bëre keroog nga gis ko yow waaw bëri na ko si jom bëri na ko si fula bëri na ko si ngor Reug Reug la grand champion la tamit kenn dañ koy nangul champion mbër mi doog a daan moom champion nga dañ koy nangul champion Sathies lamb day xam ne mbër mbër boobu mënul woon ñàkk ndax mënul am ñaari com kom combat capital ñàkk day bëgg a ñaaxat bi day métti lamb moo demee noonu rek waaye rek ñoo ngi koy du ko ñaanal di ñaanal Sa ndam li jikko si barke yonent bi ñu gisoon combat coow 4 appuis la ñu du 4 appuis finalement jox nañ ki nga xamante ne mooy Sa victoire bu ngeen yéegee ni CNG na li nga xamante mooy verdict bi jox Sa victoire lan la leen def ay bërekat lañ bu waaye loxom dafa rak dafa tubb mu bëdaxal ko foofu fa mu doon ak 4 appuis jóg waaw loolu moom mun mun koo téye sax loolu am na fu si moom bërekat la du si moom moo tax. dëgg la moo tax lamb waaye koy nangul rek. dëgg la waaw. ana promoteur yi ndax ñu di la proposé la. ay avance di fanaan ak moom nii di lekk ak moom di tëdd moom la 29 mai laa war a bëree. yaa kan. maa ngi Mamor. Mamor Fass Mamor Fass Mbaaw maa ngi si woo ñëpp nag. tey di si woo Ibra Sadi nan ko fay salle bi ñëwagul Serigne Gueye. maa ngi nii Ibou Dias maa ngi nii di la xaar Ibou Dias fay salle bi maa ngi la siy xaar Ibou Dias maa ngi koy di fay salle bi maître dan ba Abdou Dialy kan ma la na gars yi teel a yëngu na ma préparé juum juumaat waruma damaa war a am ndam si kàttanu yàlla yónni fii soi bi li doon mu nekk Mame Mor bu Fass non man mbër laa lambay sama métier rek gars yi ko bëgg rek te dama war a bëggal amateur yi ku am bor moom da guerre moo ngi fi damaa teg lu métti may bëgg a dee bii baa neen du may du ma lay jël ndax damaa daanu bii baa maa doo daw sama de la vie man doomu garmi la sama mais yëkkati ay pot lamb ay pneu yooyu noonu entraîné mais après ah, ration bi la la war a nekk li ngay yooyu su ma gisee sama yaay suur ndox dama koo damay réew rek éranger ko ndax kër gi baraag la courant ñëwagul ndox ñëwagul dañoo teel a ñàkk bàyyi maire bi di dang ma si xew yi bu ñëwee ngay gis da ngay jéem a rende ngir sama yaay même ma yor lu ma lekk sax damay suur xam ne daay day métti ma koy jaayante kon man la sa di a xaar ci combat ma rek man jàppale laa manqué su ma amee lamb si jàppale sama morom mënuma kan Alioune Seye Reug Reug mooy lamb ji nga may la dëgër Alioune Seye Reug Reug la dëgër Reug Reug la ñuy wax Alioune Seye Reug na ñëw Alioune Seye koy xaar Alioune Seye kenn koo bañ mukk ci àdduna bi mukk Alioune Seye mbër mu dijee ko arrangé mu wu ko am naa baax a baax lutte motivation loo koy wax looy wax scène solo TikTok bi ah. si gars yi jàpp góor jàpp ci góor góor jàppaat ci góor ba góor sampe la. bu mag boo gis nag bu ndaw la woon nii la démarré woon rek wax ji jàpp ko téye. bu mag boo gis bu ndaw la woon découragé rek moo bon mbokk internet yëpp daal ak parcelle am 26 bàyyi ma kenn. tey sa teewaay. waaw tey su ma teewaay sama doomu nday Mbacke Faye moom laa indi xam nga ànd ak moom waaj ak moom di ko ñaanal yàlla may ko ndam bu rëy tey si stade bi incha ndax bu nga bëree ba tey sa diggante ki nga xamante ne mooy Gamou Gueye ndax promoteur yi ñoo ngi lay woo. waaw bi ma bëree ba ab ci yooyu ñu mënoon contacté mais dafa am lu ma tënkoon ma ne leen dafa am su lu ma nekk donc bi tamit aussi yàggul nee naa leen pare naa nekkaat naa su may entraînement reprendre naa. donc saa yi maa ngi di déglu incha allah. yan yan yan combat la lay proposé. waaw nii bi ma paree léegi déggante gu ma ak promoteur donc mais man maa ngi entraînement di leen déglu xam naa dañu xamagul woon ba xam dafa mba reprendre na ou pas mais reprendre naa quoi. dëgg la mais dégg naa am na benn promoteur bu bëgg sa sa combat yaa ki nga xamante ne mooy Modou Anta. waaw combat bu mag la bu nga xamante ne amateur ñoo ko soxla. dëgg la waaw dama bëre combat mag Gamou Gueye ñu bëre ba të. tey man ak Modou Anta Modou Anta amul adversaire amul adversaire. dëgg la xam combat dañu war a ñëw ñu bëre combat jàq la combat bu métti laa bëgg mooy ñëwaat arène nationale waaw am na lu nga xamante ne nag donc su su ma ko mënul am damay jël li fi mais nag loolu mooy suma combat loolu mooy combat amateur yi mooy combat àdduna combat bi si kan la yàqoo sa combat ak Mor Anta bon moom mooy taamu Mor Anta dafa mën a taamu donc ñun duñ ko forcé nag duñ ko muy taamu mais ñun duñ ko si dara pare nañ ñu ngi entraîné ay xale lañ waaw su ñëwee ñu bëre. mais ku la indiloon avance mu avance Mor Anta loo ci nar. bu ma ko ñu bu ñu ma ko indilee léegi léegi léegi guddi ci laay reer combat boobu man moom laay xaar. sa ñeme nga kooku de mais dama bëgg combat dama bëgg combat boo xam ne combat jànq la parce que tey lamb lu yomb amu fi moom tamit man mënumaa yomb ci kanamam te bu jëlee avance bi dina xam ne am na combat bu musul am. tey ji bu sa combat ak Mor Anda bu taxawoon tey jii nii lan nga nar Tapha Mbeur. duma ko daan ko naruma leneen liggéey li ma war a liggéey indi doole ju bare duma ko daan ko arène nationale dem ñibbi parcelle incha allah. est ce que dina yomb. bëgguma lu yomb. te moom bu dëggalee boppam combat bi du yo waaye yow doo ma bàyyi. gis nañ ko fan yii muy muy liggéey lu metti moom Mor Anda. li muy liggéey la xam man maay doomu gii ak Pape ak Grand Ada. mais saa yu nu ñu bëree noonu bu ñu xeex doon rey moom du ñu xam. ragaluñu loolu mam na jël avance bi rek lexuñu leneen combat boobu amateur yi ñoo ko bëgg. dëgg la combat jànq la. mais mais mais mais mais amoo amaatoo beneen choix ku dul Modou Anta. bon ama neex yaa ngi man combat jànq laa bëgg. ay combat yu dangereux rek ngay wax. bugguma benn combat bu ñu naan Tapha moo mën combat bu may jël damay ñaan yàlla mu doon combat bu nga xamante ni dañ naan combat bi combat bu métti lay doon barki sëñ Fall loolu laa bëgg te loolu laay xaar. la nga dama bëgg lu bees dama bëgg ñu xam ne ñun man daa fu ma teg sama bët te incha allah fa laa jëm te lu yomb mayu ma te ku bëreeg man xam ne mbër ngay bëre. Modou Anda ak Amaneex. ñooñu ñooy samay adversaire mais loolu dina doy waar de. pare naa buñ bëreeg man xam ne mbër maa ngi ne dafa am mbër comme son nom l'indique bilaay walaay taalaay. ndeysaan mais nan nga gisee li euh, temps yi làmb ji. waaw mi ngi neex macha allah combat neex mi ngi am. gars ñu ngi koy bëree xam nga di ko teg si yoon. di ñaan yàlla rek làmb gaan gën a avancé affaire gën a yaatu combat gën a taxaw incha allah loolu la ñuy ñaan. jërëjëf gis nañ fi coow am si diggante Sa Thiès ak Reug Reug arbitrage ban gis-gis nga si am. waaw loolu yàgg na si làmb erreur arbitrage arbitre ay nit lañ rek dañuy juum xam nga te. sport boo gis day am juum donc ñun nit ay mu lañ mënuñu taxaw place CNG mënuñu taxaw place arbitre li ñu gis rek lañ mën a gis toog xaar déglu CNG loolu rek lañ mën a gis mais lamb ji neexoon na li ci gars yi doon xaar yëpp am na ci am na xeex am na bëre wallaahi. am na solo ñu lay jaajëf kontaan nañ jaajëf jaajëf